kui sargal sama papa Ibrahim Bay soppe seexu yàlla yi ñoo koy sargal ñi wo artiste comédien yépp ndax sama papa xewla nak nag di fort man ma bëgg ko lool ta bokkuma ko kenn hmm samedi du yomb de samedi mo ma ngi Rufisque ma fay ñëk ma fay mujjé ma fay jitu daal ñu ngi leen wo ba samedi acca nee naa leen di ngeen laal laalaake ñun waa Tëngéej di ngeen laal suñu xol bi kooku mooy kan kooku mooy Ibrahima Mbaye Sobé macha allah kooku nga xam ne macha allah mooy doomu Tëngéej kenn du moom ci mim réew la diis ñu fas yéene dina mel ni takku naanaa kooku mu nga xam ne macha allah yàgg naa bigal xale yi yàgg bigal mag ñi naa kenn du moom ci ñëpp pare nañ nee naa la man si samaane bu wal fu maa ngi fa la diis dina wàcc ba zéro degré dëgg ne asalaamaaleykum wa adduna asalaamaaleykum wa rahmatullah wa Sénégal

Ibrahima Mbaye ci digne fils de Rufisque yow buñ lay sargal ñep war nañu yëngu buñ lay sargal Sénégal war na yëngu buñ lay sargal Tëngéej du dess ginnaw ndax nak tu fais notre fierté Ibrahima on est de tout cœur avec toi nek ñep a waajal samedi prochain lay doon à la salle des fêtes de Rufisque à partir de 19h invité nañ si ñep man de Ibrahima Mbaye bu wootee damay daw ba fakkastal parce que nag ji na amna ngo yek na nit fonk na doomu aadama jox na ñep cër te lu waay di yëngu ci Tëngéej mo ci jiitu. Euh, il prône sa confiscité comme il a l'habitude de le dire. Donc, Ibrahim Mbaye Sopé, euh, on ne peut que te dire bravo, félicitations, le meilleur reste à venir. En tout cas, nous, on est tous derrière toi, de jour comme de nuit. Faut nous, le gour comme Digen. Le meilleur reste à venir, mon grand. Bonne continuation. Ah, Amadina. organisé spécial, ñëpp daal moom may soppe dama du n'importe kii de seexi na da ngeen def loo xam ne nii xamu sax fu mu nar a toog oo ngeen Sénégal war ndax oo naa si guuxum so da ngeen di oote ak ki ngeen di sarga dafa dara liggéey Sénégal bi kenn liggéey ko Sénégal yaatu bëgg ñëpp mënul nga ne artiste bari na fi artistes yoo xamne ne boo leen fëggee ñu na la maa ngi ñëw leen ma sa gis papa Ibrahima may soppé disponible nga disponible bo xamne ni nii ñun sax xamuñu fan lañ lay nan lañ lay fayé donc sargal bi may o bép artiste bo xamne yaangi yaa Sénégal na ko téwé li mom du yomb de seex. salaamaaleykum salaamaaleykum tay ah, nak mom tay ñu ñoo ay ñu ñoo ay aye ndax ki ayé sunu frère la sunu xarit la sunu lépp la ñu koy Ibrahima Mbaye Sopé Ibrahima Mbaye Sopé nag dañ ko war sargal waaw les jumeaux fa la koy sargalee ya. ak kañ la ok gars yi nee nañ le 10 la muy samedi muy fan centre de fête mu nek ci mairie bi gaay bu ko kenn manqué bu ko kenn manqué bu kenn wuté ñun ñoo ayé ñun buñu ayé ayee dara du yow lu sedd kon gars yi ku ñu fa dëgg nañu massa jaajëf salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ku ñu sargal ibrahim Mbaye Sopé ku jara sargal ku baax ku yëg ñëpp ku xeebul kenn loolu dana mel ne ba train ba wàcce raay ba jubale territoire ba jaxasoo baak fa la xoo ba naan ba daw ba romb gaar ba tiit taxaw jënd téere ba ngir tari ba barke sargal ibrahim su Mbaye Sopé dootoo la ko defee ndax xam naa ne songu songum de kon ah ñu du nugum nugum Ibrahima Mbaye soppe sunu grand sunu xarit di sunu kilifa ci aar bi ñu koy sargal le 10 avril jërëjëf macha allah maanaam ñan naan seexee la seexe yàlla ñoo koy sargal kon nag grand Ibrahima Mbaye soppe nga xam ni mhm. yàqu aar bi te yaatal nga ko aar nag ko day xëy xëy wasin waaye yow xataloo ko le dis nag waa Rufisque yéen a woote mhm. magu ñëpp ci aar bi ngeen woo mooy Ibrahima Mbaye Soppe mhm. man Cheikh Abdou nugum nugum ak Mbaye Sapar Sapar dinañ jógee Bawol ànd ak délégation bu rëy mhm. ñëw nag daal di may doole suñu garaan ndax bu ko naw santu ndaw dëkk daal mbay par kon lëfar lëfar ni la maa la mag ne ko waaw waaye ku ni la maa la gën ne ko déedéet lànkal lànkal lànkal kenn gënu la asalaamaaleykum sama gars Rio Comedy Show ce samedi 10 avril à la salle des fêtes Mon événement Comedy Show deugle mais ñu ci sargal sama idole Ibrahim Mbaye Sopé sama idole sama grand frère sama sama lepp ki nga xamantene ne tey jii nii royukaay la ci limuy def ñun ñi nga xamantene ñu nekk ay rakam di ko ci roy ba ci woo ñep donc bëss la bo xamantene bëss bés soppe la bés soppe la sama bés la je ferai tout pour venir ma ci woo ñep di leen xamal événement bi. loolu du yomb ñu koy sàggal seetu yàlla yi depuis service de salle ñëpp ci suñu sargalu Bamba suñu kilifa ah, directeur festival Keparu Maam ñëpp incha allah ci sargal bi samedi le 10 avril à partir de 19 fan lay amee ci salle des fêtes du Rufisque. donc ñi koy sargal nag ñooñu ñooy waa Rio Comédie nekk les jumeaux donc euh, ñu ngi woon ñëpp ndax ki ñuy sargal icône la na ñëpp ñëw incha allah samedi à partir de 19h ñu ngi woon ñëpp. asalaamaaleykum bis de tout borom lay tollal la 10 avril lu rëy moo xew fële des salles des fêtes ba ca Tëngéej kan la ñuy sargal notre directeur national kooku nag mooy Ibrahima mbay Soppe kooku nag mooy le grand maestro kooku mooy le grand artiste kooku mooy tabaarkàlla ndaanan bu ñaari seex yooyu nag di Isu ak Badou nekk ci Rio TV ne dañ koy fas yéene sargal le 10 mise en place de à partir de 19h gars yi bu ko kenn tardé ndaxte xam ngeen Ibrahima Mbaye Sopé directeur moom bu koy sargal mel na ni artiste comédien yëpp ngay sargal te ku ne itam mën naa ñëw teew fa ndaxte borom bis bi jar na ko kon bu ko kenn tardé le 10 avril man Alaaji Ndiogou Pouye le président des Patas national maa ngi ci woo Patas Tëngéej yëpp. le 10 incha na saisi na saisi tegloo ndax bataay dañuy tew Ciao Sab, ici Edou Ndao alias Bouba, le PDG des Meutes. Donc, c'est mon gars, je suis là pour vous parler d'un événement qui me tient à cœur parce que qui xew le moo tax ñu daanu mbay soppe ñëpp dañu dajé bu ko sargal le 10 incha allah mu rabbi fële ci Tëngéej donc man mi nga xamné rakam la xaritam la soppeem la euh, mooy sama conseiller mooy sama euh, idole tey bis bi day mel ni man maa ko moom parce que buñ ko sargalee man lañ ko sargal te yow mii tamit xam naa ne foofu nga toll ci moom te noonu nga mel ci moom donc maa ngi invité encore une fois ñëpp ñu daje fa fële ca Tëngéej waaw sargal ko ba mu xam ni mi ngi ci xolu nit ñi waaw li nekk ci ci nag bi nag xajul ci cin li donc li ci des fële lañ koy mottali donc ne vous le faites pas raconter incha allah rabbi à Tëngéej le 10 incha allah rabbi. ayca mu ngi noonu bu ko tardé lan la ñu ne sargale Ibrahima Mbaye Sopé ñan ñoo koy def ñu ne seexu yàlla yi kañ la ñu ne samedi 10 avril la sa salle des fêtes bu Rufisque ay eh, yow mi bëgg kontaan reetaan mel ni ku ni coxotaan si pokotaan serigne medoun sey borom tawfiq féex fekku ñu fi nga xamanteni moy mooy Rufisque ay eh, di nga contant de parce que da ngeen sargal ku baax macha allah Ibrahima mbay Sopé hein ah, yalla sa jamm yàgg. bala 10. waaw ayca ma leen di jox rendez-vous le 10 spécial sargal Ibrahima Mbaye Sopé suñu mag suñu lépp ñan ñoo koy sargal les Zimou ah mi ngi noonu spécial soow lay doon le diis may jox ñëpp rendez-vous di leen wax man baay dañ koy yëngal ba mu yëngu ak Zimou yi du yomb xoola sargal suñu mag la suñu grand la kon ñun lañuy ñuy sargal dégg ah salaam salaam salaam salaam salaam euh, dafa am ku ñuy sargal ah bon ah Ibrahima Mbaye ah macha allah ah, kooku moom ku ko sargal fekk nga ci ndeyam fekk ci baayam fekk ci ay nijaayam kon le 10 ci tëngeej incha allah du yomb sargal ak suma jarbaat suma xarit Ibrahima Mbaye Sopé l'international. Eh, salaamaaleykum sargal Ibrahima Mbaye Sopé war na ma war na la yow war na sénégalais yëpp ndax nag liggéey la ci réew mi liggéey boo xam ne du fay mukk ci ay yeeteem ci mbaaxam ci yaram. ci fonk doomu aadama waaye tamit ci succès yi nga xam ne am na ko ci wàllu théâtre samedi bii lay doon incha allah 10 avril foofu ca Rufisque ci salle des fêtes bu Rufisque ànd ceeg seexu yàlla yi seexu yàlla yi nag la ñu def ñun la waroon la ñu def état la waroon la ñu def réew mi la waroon kon samedi bi incha allah nañu ñëpp teew ñu sargal suñu doom suñu sag suñu mag suñu kilifa Ibrahima mbay Sop maa ngi ca biir incha allah jaajëf acca nenan nan màggatum géwal ku ko jox bopp nag def nga lu la war màggatum law bi ku ko jox mbuusu fer def nga lu la war màggatum naar ku ko jox mbuusu góon xam nga ni def nga lu la war waaye ibrahim bay soppi réew mi ku si def programme saragal la def na lu ko war programme bi di na yëngatu dina metti dina yàgg man général kay maa ngi si biir grand soppi bul sol daalam de maa ngi daal waa xew xew xew xew xew xew lu xew seexu yàlla yi ñoo defati mbir de mbir mi lan la sargal Ibrahima mbay Sopé te ngeecc fu mu miin fu mu xam fu mu dëkk fu ko ñëpp bëggee waaye àdduna nag ñëpp la bëgg le dix du yomb gaay nañu booloo waay def mbooloo mu takku jëm te ngeecc teewee sargal Ibrahima Mbaye Sopé dina neex dina neex oh dina neex dina neex bal ma sax li ci dess le 10 lay ay assalamu alaykum wa senegal assalamu alaykum wa aduna donc kaay dem vendredi allah sargalkat bi Ibrahima Mbaye soppe ki bax ki ris ki ken way itam ki nga xamantani du tax xam muy dara njabootam ak. waaw ñu ngi lay ziar di la ziar waaw moom bëgg rek franchement yëpp yi moom suñu yëpp la waaw kenn ñu ci allah. di wóor ñëpp. ñu allah. ñoo ngi woo képp kuy artiste comédien comédien ku nekkul artiste war ngaa mën a ñëw ñu sargal soppe ndax même bu dee benn fan doo nga ko sa biir saal conseiller la wala mu gindi la wala sax mu reetaan loolu tubaarikàlla dana mbay soppe sargal ko war na seexu yàlla yi jaa ngeen jëf gis nañ loolu ay ka sargal Ibrahima Mbaye soppe asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Dakar asalaamaaleykum waa Rufisque tey seen doom moo aye muy le grand Ibrahima Mbaye bu jara sargal a noonu suñu papa suñu grand suñu xarit nañ daje ñun ñëpp samedi incha allah fekk fete ko ndax grand la boo xamante ni ku sonn la ci jeunesse en formation théâtrale ku sonn ci jeunesse en net bi nga xamante ni moom la ñuy apporter ñun ñëpp donc euh, n'oublions pas les mesures barrières ñu dajaloo ñun ñëpp dem sargal suñu grand frère dem sargal suñu Ibrahima Mbaye Sopé national incha allah le samedi maa ngi leen jox rendez-vous yéen ñëpp foofu ñu dajal. asalaamaaleykum Sénégal na monde ci ah tey nag sama taxawaay taxawaayu mbégte la taxawaayu fierté ndax nag ki ñuy sargal dafa baax ci ñun gën ci ñun yow mi nga sax xam ne yaa ngi seetaan sama vidéo sax baax na ci yow ndax na sa res benn jour rek ah toog nga ko seetaan sa télé mu bëggal la baamu indi la muy kan Ibrahima Mbaye Sopé hmm? ñu koy sargal kan moo koy sargal seexu yàlla yi. bax ris gën ah jar nga sargal macha allah ndax nak tu ci sa njabot rek ngay dox lepp lo xamanteni xam nga ni boko doxé ci say njabot ñu arrivé ya nga ci guddi ak bëccëg jar nga sargal ku jara sargal ay te ku ñu fa dëgg ni ñu massa ñu ngi woo kull kuy artiste comédien comédien ñu ngi la ci wo ci bëss bobu nga xamanteni samedi la incha allah ñu sargal ki di suñu papa suñu frère suñu professeur waye tam suñu confident Ibrahim Mbaye Sobe sargal la warna bis peace and love